Ali seen papa la. dëgg la. diggante famille ñu bokk benn dret ba pare bëgg leen. amuñu benn problème xuloowuñu xeexuñu waxuñu lu ñaaw. yow bokkoo ca famille ba. di ca wax. Hmm. diggante Kéba Seck ak keneen ak di ca wax di ca wax di ca wax ba yow nga bëgg dugal sa bopp te ñoo ca bokk waxuñu. waaye Cheikh ñu leen di wax loo it. ah ñu leen di wax loo tamit. ñi leen di wax loo leen di wax loo kenn di ñoom ah man di réew mi léegi jaaxal na problème ma woo ci ay site waaw gëj ma maa ngi nii génn single ma leen te ngeen ñëw ñu wax ci sama woy bees bi moo gën ngeen may ah, laaj ci Keba ak Waly man daal su ma doon Waly Seck xamul may def pour wan leen ni ñii samay doom lañu eh. damay taal sama to woo caméra yi mais jàpp ni ci nopp manjaay di ko caw di ko caw ba dugal ko sama biir ne ko toogal def ko noonu bambali yéen problème mu famille jàmbur. réeroo wuñu sax de. réeroo wuñu amuñu problème xuloo wuñu yéen ngeen bëgg ci problème. réeroo wuñu de. ngir yàlla tamit. réeroo en princesse princesse kaay. tawaale dafa bëgg mbokk. Ah? dafa jaay lii princesse ngi nii yow amul seede baaxul. waaw oh, princesse doo wiiri nii wiiri nii tuuti. princesse wiiri nii. gaa gis sama ñaareel non wiiri nii rek. princesse wiiri nii gaa gis sama ñaareel. madame Sarr laa bëgg a tiital princesse ñëwal nii fee micro bi du wax de <laughs> micro bee mooy wax xaaral ma ñëw سما نار الذكر نار الذكر نار أحرقها يا بدون با برنسس زعما بري كارثة من خمنا لولو داك بري كارثة فرم سار سوي دغني دما راغال موتي با يا تام بو كوتي دا نيو نيو تاول بك برنسس برنسس تاول واو واو تاول تاول تاول نمر تاول تاول naa kii bëgg naa waaw toog naa bàyyi sées bi. sées bi moom ma ko abal de ko dem ko damm de. kooku mooy sama sàng bu demee mu yeneen sées. mais mais princesse Daba Ndiaye. Ah. yow alhamdulilah sax bi nga fi ñëwee dafa am benn liggéey bu muy liggéey ci kër gi. Ah. mais maa ko këf princesse. Hmm. diggante Waly Seck. Hmm. Bambaali. Mandiaye Seck Kéba Seck. Hmm. mu nekk loo xam ne man pour man amuñu problème te mosuñu am problème. mais ay jàmbur jógee fële. di dugg ci famille jàmbat ba ci bëgg indi problème yéen bu ngeen wax ni ñu jëlee di wax naan ku sa mag baax lay wut ci magu jàmbat ba jaxee yaay waaye xanaa ñu ñu famille ñu génn ci suñu famille bi tam ah wax leen de dëgg la waaye man de bu fekkoon ni eh, Youssou Dieng hmm. ki wax hmm. bu dul nit ku bon la hmm. wala ma xam ci moom benn coxarte mbaa ah. ma xam ci moom benn caay caay wala benn iñaan wax dëgg yàlla dina mana a xari lah. ndax man ku ne xam na ni man na touche pas à Wally kenn du ko laal hmm. sama nattu la mënuma ci dara fi mu ne nii man waal dama koo bàyyi man aw ah, moom benn affaire ku ma xam-xam nañ damaa bàyyi waal bàyyi ko de moom benn affaire mais tamit gis nga ki wax day nit ku baax muy Keba Seck nekk ku bëgg mbokk te xam naa man fan la Kéba waxee. Mhm. Kéba ci sañ-sañ la waxee. Mhm. ci yëg-yëg la waxee. doomam lañ. maanaam day tiitaru ci kaw doomam. di wane ni nu mu mën a toll ci réew mi. Mhm. c'est mon fils. moom foofu la waxee. dëgg la mais nit ñi jàpp wax ji taayu ko ni élastique. yaa ngi dégg fi ma waxee. mais benn erreur moo am. wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne fi ma waxee. sa laaf. en eh? famille. dëgg loolu la tubaab wax. tubaab waxul loolu de. lu ma mais est-ce am na linge. maanaam maanaam boo gisee ma ni la loolu. Uh-huh. maanaam dama dégg man ci wax ci dama seetaan lépp ba mu jeex. Uh-huh. dama dégg tonton Keba mu ne. Euh, waali fierté famille bi la. Ah, loolu la njëkkee. loolu la njëkkee. wax wax ju am maanaa. xale man lan moo tax ñu jël li baax li. teg ko fële foofu ne xale yi génn di ko di ko xarab. waaw fii lañ ko gërëm. fii toogoon di ko gërëm ne moom mënul concevoir nit. nga gërëm ko tey. suba nga tagg ko tey bu subaa ah. nga xas ko. moom loolu la njëkk a xam nga journaliste dañu am waaye bu tëbee sañ-sañ ñu ci kaw doomam. Ah. ñu jël wax ji taawi ko. dëgg la loolu man neexuma mhm. beneen bi ci topp mooy moom it dafa xaw a tuuti erreur fi mu erreur xam nga mooy lan doomam moo tollootul noonu ci réew mi. gën la fu ñuy waxee. kilifa doomam moo toll ci réew mi noo xam ne. na la jaago jur ak coon. boo ko tooñee ab maa njaagoy jóge fee dóor la. maa la wax lii fii la waali tool. <laughs> dëgg la. barki Seydina Muhammad nga problème de. déggoo ma de. maa ak koomu moom sañ-sañu bàyyi lay waxee. Uh-huh. man xam naa Kéba bu baax. nit dóor ko xol bi rafet na day partagé. lu mu yor bokk kook nit ñi. waaw buggul ñaaw ba pare nit ku honnête la. looy wax ak moom na ko xam ndax boo waxee loo war taw ci karamam. Uh-huh. di ko waxaat. dëgg la wax dëgg. yàlla de laay waxal mais tamit. ka muy sañ-sañ lu oh. moo tollatul noonu ci réew mi. waa léegi jërëjëf lii rek kay problème bi de <laughs> boo ko tooñee Waly Seck eh. na eh. la jaago jur ak coon nee naa la ab pourtu ngaa ñooy jige fee dóoruma la bu doon jaaga sax ñu dal ci kaw. dan lay dóor waalee toll noonu ci réew mi loo koy wax na ko. jaaga de daa jur waale ba pare daa jur. da koo jur te xamul li mu jur. moomatu ko da koo ah, la kaa bi demee. léegi ku koy wax rek wax bu ñu jógee ci taarix. Hmm. damay ñëw ci Cheikh Oumar Foutiyou Tall bi nga xam ni. Hmm. moom la euh, Youssou Dieng way woy wu rëy te xam naa ni suñu mbokki Haalpulaar yi ñu la songee di nga xam ne lépp dëgg la. waaw tàmbali nañu tàmbali nañ kon waaw waaw waa Bruxelles ak waa Anvers ñu ngi may woo woo ba mu la man dama ci dama ci woo Thierno Seydou Nourou taal moom may soxla. Hmm? doom laa denc. maa ngi ko ci woo. nga ni ma kon yow kon yow ku ñu say goro lañu. xarala man sama soxna maa ngi ko takkee ci biir néegu xalif général Omarien. kon kay Cheikh yow. Thierno ma daal di Tall. nga ni ma Medina. waaw. mooy sama goro. macha allah di ko may sama yaay. Hadja Koumba Sall Guidel Cheikh Mouhamed Foutiyou Tall maa ngi ciy woo tamit bu baax a baax monsieur le ministre Amadou Niang macha allah parce que way wi da ci war a yëg loo xam ni mm. ah. mosoo ko yëg ci way waaw waaw waaw way wi maa ngi ciy woo tamit bu baax a baax Thierno Seydou Nourou mm-hmm. ñu ngi ko ciy woo ñu ngi ciy woo képp koo xam ni sët nga way naa ci Thierno Seydou Nourou ah way naa ko ci nga ko ci waaw waaw yow de xamal naa leen Thierno Seydou Nourou bu Thierno Bachir ah way naa ko ci kooku uuf sama doom tudd ko ak Thierno Bachir ama Thierno Bachir nag yàlla dafa dogal dama ko bëgg rek xaw ma ko sax mais dama ko bëgg te wi tamit ñu ngi ciy woo Thierno Sama sax morab bi. waaw waaw waaw. way wi ñoom dañu ñaanal ma sax moo ma gënal ñu may may. bu ñu bu ñu paree xam nga waxin laa def waxin laay wax bu ñu paree nag ci njabootu. Euh, Cheikh Mouhamadou Tall uh-huh. dañ ciy woo njabootu maam Seydi Hadj Malick Sy. dañ ciy woo njabootu maam Borom Touba. dañ ciy woo njabootu Cheikh na Cheikh Sadbu. dañ ciy woo njabootu Seydina Limaamul Mahdi xamul tax ma woo kër gi immeuble bi lu muy rafet rafet rafet. dafa am ko taxal fondement. bu mu ko taxee ba noppi njaagoo ñëw peinture ko ñu doog ne kër gi rafet na. waaye bu kër gi rafet rafet bu ñu fàtte ki defar fondement. maam Cheikh Omar Fouti Tall mooy fondement yi diine l'islam nga bañ nga bëgg nga nangu. loolu la yaa ngi dégg. moom moo toogoon ak wayjuru maam Fawade Wele. ni ko dana am góor gi bawoo dëkk sàngam frère am ah. Hmm. Euh, euh, euh, maam Alfaay ma yoroon nijaayam la moo ko nijaayu Seydi Hadji ah, bokk ak maam Faa Wade Wede ndey ak baay kon juumuma de mu toog mu ne ko maam moom i kebe dana am góor dana am góor yàlla buy jógee dëkk sàngam dana ñëw bu ñuy dink leen ko soxna si soxna soosu bu ñëwee leer gi muy indi bu ñëwee lii lijaasaam la jox leen ko ko muy maam Seydi Hadj Malick maam Cheikh Omar moo toogoon ak wéyjuru maam Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul mm-hmm. ni ko ëllëg nijaayam ba tey teg ci ni nekk nijaayam mm-hmm. sëñ Busoobe waaw dafa jóge màkk moom Cheikh Omar mm-hmm. ne leer gii ma ma ma feeñu ci màkk topp naa ko dafa ne màkk la ne ndax ndeke newul màkk mm. ñëw naa ba fii fii la ne digg la ne ko nag ñëwagul. Mhm. waaye dina ñëw ne yow sëñ bu soobee. Mhm. sa taaw nañ ma ko tuddee. moo tax coon sekk ne moomi Abbas Abbas Seexu seexu sëriñ bu soobee. Ah, ni la demee. maa la wax lii. dégg taawu sëñ bu soobee. maam Cheikh Omar la ko tuddee. Cheikh Omar a ko sàkk ci moom. Mhm. ne ko nag. Ah, sa jigéen ji dina am borom kër doom jancay am muy cheikhul khadim tubarkallah bu bu gëné jamono tonal l'islam jeex biñu toggé dakaru lëndum lool ah. diina commencé fi raflé parce que dañu and nañ dem ci cheikh mohamed fouital moy goor yalla bi nga xari mo téwal l'islam mag biñu démé